ko di ko ñaanal. yàlla xaaree ko àjjana oyofal suuf ci kawam. amiin euh, l'homme partout it xam nga moom ma nga ci ngénte la ba léegi <laughs> waaye sama waa ji mi nga xam ne du du ma abandonné mukk. non maa ngi lay ziar di ñaanal ñëpp jàmm rek di ñaanal ñëpp jàmm rek yàlla na yàlla def yàlla def ñëpp am jàmm. amiin euh, si yenn site internet yi mere naa leen trop njaay. ah ñu dem jàpp ma jël sama photo ak sama photo soxna. waaw man sama soxna man damay ngént dama doon ngénte démb. sama ah. soxna daa seex. yow mi lañ wax yaa doon waaw ba pare sama soxna dafa am seex. xam nga loolu. Ah, sax daa mu yàgg naa la wax dem nee naa yàgg naa leen wax ni leen. Ah. site internet yi. bariwuñu ay journaliste <laughs> toog di sosol ay nit di wax loola leerul ba nit ñi di ma woo fu ne ay kilifa di ma félicité naanu ñu ngi lay félicité. ci ngénte ci ngénte la ci ñuy wax ngénte la non non non c'est que amul dañoo war di saytu bala ñu ngay bind dara. da ngaa war di amul leen xëy na dañ leen ko dañ la ko yéene rek. waa jëy bëgg monsieur légaliser nag tamit war nañoo wax ci moom. monsieur légaliser. waa jooju bëgg ñu légaliser yàmbaa ji. déet ban. waa jooju démb xamoon naa ne. non non man waa ji li mu wax dafa maa metti waa ji dañ ko war a téye une semaine di ko jox ay yamba muy un mois su un mois après ñu laaj ko ndax non non non non c'est que c'est que koku lu ñew ci dëkk bi rek. nañ ko légaliser. avortement euh, avortement yaa ngi tooñ dëkk bii du fii du France. du Hollande yaa ngi tooñ baax na daal moom xalaatam la wax. di xalaatam boobu day yàq dëkk bi. waaw déet loolu ci sa xalaat su bëggee na ko nan am na droit légaliser ko biir këram. waaw mais bu mu amul droit naan nañ ko légaliser. ci réew mi non non non. bàyyi la ñu koy tux ñu joxe seen. point de vue non non non non non mbir kay ku mu soxal ca nga cay wax. dama ne nag naar bu ndaw lu mu wax ca bu mag ba la ko déggee. maanaam ah. loolu waxu ko c'est pas gratuit ah. dañ ko koo wax loo. <laughs> Ah, ah fa léegi waaw réew yu koy légaliser ñoo ko ko wax loo. waaw d'accord yaa ngi naan ñaan jàmm ñaanal jàmm. waaw na jàmm jàmm <laughs> légaliser yàmbaa moom du jàmm moom. <laughs> waaye Aliou Ba mais su tuxee yàmbaa ba maan Sénégal nag da ngay waaru wuy ma. waaw Jamra kooku la ñu war a waxal. kooku bëgg ñu légaliser yàmbaa ji. waa Jamra kooku la ñu war a waxal. ñoom wax nañ ci. nañ ci waxaat dégg nañu ma Matar Gueye wala mu ko wax. ah dina ko sama waay la waaye xalaat boobu moom delloo ko fa ko jëlee ah, vraiment. ah dem na ba ko fi fàttali benn imam boo xam ne ci banlieue bi def na deux ans. waaw doomam buy bu ñu xam ci tuxum yàmba moo ko moo ko rey ci anam bu ñaaw. Ah, gis nga tuxum yàmba moom baan. waaw ah. mënut a legal ci mim réew. da ko teg rek. ak condition boo ko mën di teg. jaay ci pharmacie même boo ko doon jaay police. wala ci camp militaire yi. waaw ku bëgg yàmba dem joxe document yuy mën a tax ñu mën la jox yàmba. waaw tuxum yàmba mënut a légal ci réew mi. est-ce que tuxu ko sax cagatu giñ fi légaliser rek doy na sëkk. leneen luñ ci dolli yàq réew mi ah ñu doxal ci xalaas. Njaay après yàmbaa ji dorog bi la ñuy jëw après dorog bi ñu ñëw ci kii. Njaay sëkk uh-huh. bërki démb am na benn élément boo xam ne jàlloon na fi benn waay bu doon seet yaayam ak ay frère mm-hmm. ak papaam benn nit ku ñuy wax Dame Sarr Mm-hmm. Daaw Sarr xamul xamul benn mbokkam xamul yaayam xamul papaam. mooy ki nekkoon Marseille xaw ma. waaw Marseille Belgique waaw waaw. te nekkoon ci village SOS yi. bi ko fi tegee quelque temps après amoon nañ benn piste benn xale bu jigéen mu ni kooku maa ngi mooma bokkoon nekk village SOS. mais li ci nekk yëpp mënu ma ko wax. waaw waaw pour rappel pour nit ñi comprendre tout rek dé déglul ko xale bi. mais dama la bëggoon wax ne la euh, mooy suñu frère bi def xalaas bi démb le le 14 janvier 2020 xam naa ko bu baax ñun ñaar ñoo yarandoo village d'enfants SOS bi nekk Dakar moom biñ koy adopté SOS Dakar lañ ko adopté waaw magam bu góor mu ngi tudd Kudunaas loolu laa ci xam yaayam dafa xawoon feebar genre feebaru xel yooyu xaw nag ndax mu ngi dund wala mais loolu yàgg na waaw mu nekk affaire bu triste nag parce que magam bu góor Kudunaas jéemoon na def ay recherche sax. ci ci journaux yeeg rajo yi au temps parce que dafa yàgg mais après dañoo étouffé wax bi. kii ñu ngi fàttaliku. waaw waa léegi. voilà nee na dañoo léegi nag kuddu naas goobu mu wax. Mhm. ñun amuñu woon tur ndaw si mooy ñu jox kuddu naas ñu wër kuddu naas. kii kuddu naas. voilà kan mooy kuddu naas. ndaw sii ngeen di waaj dégg muy wax. Uh-huh. maire bi dafa doon jaabante diggante dakaar ak Kaolack. maire ban maire yaay wax. ñu kudd moo jur kudd naas. Ah. moo jur waa ji waa ji njëkk a jàll di. daam saa voilà. kër ga mu daan dal ca Kaolack am na benn xale bu jigéen bu fa nekkoon bu xam histoire bi déglu xale bu jigéen bi. xale boobu yaayam bi muy ñëw fii Kaolack c'était en quatre-vingt-un boobu temps sam papa mooy liggéey ci tribunal bu Kaolack bi tribune mu ñëw tribunal ne dafa am problème ak jëkkëram bu mu nekkoon France bi mu ñëwee Kaolack la ko fa indi woon ci tribunal ba jëkkëram bu mu nekkoon France moo la amaloon problème France topp si waa ji fii ci Kaolack ne dafay porte plainte waa ji mais bi mu ñëwee euh, tribunal mu fekk fa sam papa bi mu waxtaanee moom ba pare ne ko moment heure mi Burundi moom mu ne sama papa xaw ma fi kenn parce que sama jëkkër ji laa fi xam mu takke woon ma dakaar yóbbu ma France léegi bàyyi ma France ñubbi si Kaolack moom laay wër xaw ma ay mbokkam xaw ma fu mu dëkk ma naree dem Dakar dil subaat lundi day metti ci man papa ne ko kon nañ dem ma yóbbu la sama kër nga nekk fa ba lundi sam papa deuxième femme am bambara la bambara la won comme mom nek mom itam bambara la won nek ci kër gi di waxtaan ak sama tante bobu ci bambara xamuñu problème ñum démé mu tok fa ay fan daal di wa Dakar gisunu ko gisunu ko gisutuñ ko gisutuñ ko ba 83 bi mu ñew 83 mi ngi mi ngi indalé doom bobu ñu naan bi mu ñew suñu kër la dal am fa ay fan man lepp euh bobu xalé bu jigen la mais maa ngi koy fatali ko yag mu demat Dakar mais moment yooyu mi ngi commencé xel mi di dem ma li ma lay nettali sax man booba xale bu jigéen laa daf ma daan jékki-jékki yónni ma ne ma demal ca kee mu may ma xaaj sama xarit la xam naa ko su ma demee ci kooku ndeke booba xel mi mi ngi dem doom jooju nag bi muy ñëw indi na ko mu delluwaat Dakar dellusiwaat fi ci la bi mu dellusiwaatee ci jël doom jooju yóbbu ko SOS bi mu ñëwaatee indi loxooy neenam ñu ngi koy laaj am sa doom bi mu ne joxe naa ko yóbbu naa ko SOS mu demaat demaat Dakar demaat demaat ba bi mu ñëwaat mu indiwaat beneen doom bu góor doom bu góor ba tudd bi mu ñëwee bañ koy num tudd ne kudu naan ñu ne ko ana papa mu ne papa mi ngi Dakar loolu la waxoon ci deuxième goosam gi xale boobu itam mu toog ba mu yàgg mu ñëw jëliwaat jëlaat ko yóbbuwaat ko ci SOS bu Kaolack bii bu deuxième goosam boobu demee ba màgg ñun ñu ci la di toppatoo di lijjanti lijjanti ba xam ne pap yaayam ci ñun ñi la doon ñëw suñ famille la doon ñëw moom la la doon ñëw Kaolack ci la xale boobu demandé waa SOS ne dafa bëgg ñëw vacances ci ay parents waa SOS ñëw waxtaan ak sam papa tan sam papa mi dundu sam papa na mo ben problème mën na fi vacances xalé ba ñew fo vacances muy rak ko daam ñu wax kudunaas nekkon na fi ba doon mag sax ginaaw bi bam ñew fi eh, ci keur imam asan bobu imam asan mi ngi dundu ba ba ba doon fi tuup fi doon jul musulman ñu di ko wooye Mouhamed kudunaas mais après nak doon na sax daam bobu rakam bi doon nako wër xamoon na ne maye nañ ko ci benn famille mais dafa buggoon a xamante grand frère bi wër na ko ba sonn daal euh, gisu ko ñun nag Mouhamed Kouloudas boobu nag gisatuñu ko ba mu fiy jógee moom war na am ay 17 ans 18 ans ndax génn na SOS mais ñun xamatuñ ci Mouhamed Kouloudas dara. ba tax na daam saar boobu xam naa ne pour yaay ay bokkam feeñ dana xaw a jafe mais daa xamatuñ ci moom dara fa gën a dem yoonam waaye xam naa pour mu feeñ ay parents feeñ moom dina ma xaw a jaaxal ñu nag bokkuñu woon ak moom dara mais mujj na sax li muy wax kenn xamu ko ba mujj ñu mais sam ne amoon na ca kër ga jàmm ba nga xam ne su demaan Dakar doxa dox ba sonn bu xelam wàññeekuwaate day ñëwaat ci ñun wax dëgg yàlla parce yàlla rekk a xam ndax bi muy mujj di ñëw fii ci ñun booba état am xawoon na critique torop euh, tenko na ci état bu doy waar xalaas histoire bi waaw dafa xaw a jaxasoo sama bopp man ak sénégalais waaw waa ji Dame Sarr moo jóge bitim réew na day wër ay mbokkam waaw am ku ne xam na mbokk yi ndax am na ku tudd kuddunaas waaw koo xamante ne ji frère la waaw léegi waaw kii di wax nii. waaw moom dafa mel ni xam na Koudunaas. xam na leen bu baax a baax. Koudunaas góor jigéen. góor la moom ak Dame Sarr ñoo bokk yaay. ñoo bokk yaay. Ah. léegi nag seen yaay bi mu leen amee. da leen a tas ci. internat yi internat yi. parce que àndul woon ak sagoom mu daan jaabante Dakar ak kër ñoom ndaw si pour papay ndaw si jàppale ko ci xoma lan hmm. mais da daan def heure bu ñëwee rek indi benn xale. xale yooyu ñaari xale yooyu mu ñu kenn kii Koudunaas la ki ci des Dame Sarr ma waxoon semaine bee passé hmm. te nekk Belgique ak Marseille. léegi nag condoléances. kon moom ndaw si nga baal ma mais dañ ko doon tooñ maanaam xale yooyu noonu. voilà c'est ça voilà ah. léegi nag ndax li mu àndatoon ak xelam. am lu woon ak xelam léegi nag ana condoléances condoléances mooy clé bi bi ma ndaw si waxee lii ñu jéem a def ay investigation pour xam fu condoléances nekk hmm. ba ma dégganteeg condoléances. ah déggante ngeen déglul condoléances. man la euh, bon dama déggoon dafa am sam ben rakk bu mu doon seet. Euh, Dans village SOS Dakar la nekkon man ma nekkon village SOS Kaolack léegi nak mo am ben tubaab bu wax madame madame Marie Avignon mo moko adopté nga parce que ñun euh, enfants yi nekk village d'enfants. ils ont droit d'être être par quelqu'un qui est à l'extérieur. ou bien par quelqu'un qui est au Sénégal. Amuñu une relation parce que lui il savait pas moi je savais moi je savais que. Moi, j'étais petit. Je savais que j'avais un frère qui était à, j'avais un frère qui est au village d'enfants SS de Dakar. Parce que, erreur, faut, faut, commencer. Erreur, le village d'enfants SS, nous n'avons que des Parce que, parce que, étant un Khaled, moi, je ne peux pas savoir, lui, il ne peut pas savoir. Bon, Adnan dem les années passent, les années passent, les années passent. Man, Khaled, village d'enfants SS, me oui, mais, yo, am nga un frère, Dakar, nous, tout, dame, ça, non, non, non. Information, mais, sama yaay dafa amone feebaru xel que dañu ñëw sax ba village d'enfants et Dakar du xulok ñom di len wax sama dom delo len ma sama dom ça c'était longtemps c'est interdit quelques mois adopté ko yóbbu xalé bi parce que au fait village d'enfants euh, dañu interdit woon xale yi genn madame Avignon madame Marie Avignon ñëw récupérer xale il y ko man dëggatuma woon benn nouvelle de moom ben, rien du tout un jour Khalébi commence à fippu xam euh, à 17 ans à 18 ans 16 ans tu commences à te révolter tu vois Les femmes ont di le village daal contacté le village Au Dakar bu mu contacter oui bah, parce que Dans ça il commencé à se révolter non non bref Pour me leen waxee loolu ñu contacter comme xaar problème ñoom ñu ñu durant des années j'étais en train de chercher ils m'ont rien dit Ben, moo ma doon aidé mu tudd Faye monsieur Faye heureusement kooku moom ma donné expliqué lépp te kooku il m'avait tout dit que c'était interdit moom ma expliqué lépp de A à Z il connaissait mon frère Wa, ok bah il fait des bêtises Nous woo oui bah ce frère mi ngi def bêtises, bah il faut bref ok nous jox ma numéro d'Ambi. Moi ma wax ak une fois deux fois tour, benn nouvelle ba au dernier moment il est parti euh, il a fui ok pas de souci j'ai pas de nouvelles. après je ma ba en France ba continue, continuer ah, continuer pour pour c'est là là la né, les où. mais quand que le village d'enfants SOS e euh, bon il y a dañ ko ñàkk loon fayda dañ a ah, waxuma dara ma ba France un jour ma woo c'est le bureau je suis le frère de dame je voulais savoir mais il y a un truc que je comprends pas donnez-moi les ces ces adresses rek la oui dossier B, non parti mu nous dossier bi dossier FBI on n'a pas le droit de regarder. Mais eh, moi je n'ai rien à foutre. Je vous demande seulement les dossiers, donnez-moi son son <coughs> ancienne adresse et vous me donnez le nom de, la femme qu'il a adoptée. Je suis à Paris, je quitte, je prends le métro, je prends le train vite fait, j'arrive en Belgique. Et eh, je, donne le nom de tout ça à la police, mais même pas 24 heures, ils vont le trouver. C'est pas un souci, ils vont me dire s'il est là ou pas. Mais non, mais tu sais, non, non, non bon ba ba tey ba sànq ba yàlla lu muy def dama yeewu ma gis ñu envoyé ma benn kii na ma waaye ba sa doom euh, sa rakk bi euh, nooy bànn mu ngi def su TFM bi nanana explique tu vois parce que ce ligue bi ngay def c'est très magnifique c'est bien parce que moi j'ai jamais pensé un jour que di je vais tomber sur toi jusqu'à que toi la clé que je vais trouver mon frère j'ai jamais pensé à ça et les villages d'enfants ESF ils sont là pour ça ils sont là on les paye pour ça te xale bi si ñoom la si ñoom la léegi waaw kii mooy kuddu naas. kon moom. waaw xamoon na ne am na benn rakk bu tudd Dame Sarr. ñetti rakk. waaw mais mi ngi doon wër daam. mi ngi doon wër daam. am na ñetti rakk. waaw ñetti yëpp ci village kii la nekk SOS. ñaar ñi ñoo fa nekkoon ci village SOS keneen ki moom papaam da ko yóbbu woon bitim réew. Ah. mais kenn musu ci gis moroomam. léegi wax ci yëpp mooy an yaay. seen yaay mi ngi ci nature bi wéerul woon kenn xamul mu ngi dund. kon ñoom ñii xamuñu amuñu benn nouvelle seen yaay. seen seen nii ci seen yaay lañ nekk fi mu ne nii ñoom xam nga mosuñu gisante. waaw mosuñu déggante. ñoom ñeent ñëpp. ñëpp yéen yàlla def na xalaas tax na déggante nañu. kon kuddu nas mi. waaw yëg na ne am na frère bu koy seet bu tudd. Dame Sarr fi ñi ngi wax. boo ah, war a gisante tey jii. fu ñu nekk. ña nga France. est-ce que déglul déglul kuddu nas. man bama ma génnee village d'enfants SOS euh, Kaolack euh, dugg foyer après ma génn fofu nonou lay def sama recherche bop def sama recherche bop ba xam sama famille papa grâce à Charles Foster sama fa sama famille papa ñom ñoo nek immeuble David Diop bon xaw nak ba sama sama maam bon je sais pas si dee wala deewul ça je ne sais pas mais comme nous ma la expliqué rek man maa def recherche yëpp yëpp yëpp côté dame, sama côté lépp lépp lépp man m'a def recherche ba trouver sama famille sama famille sama côté papa. trouver def bon dame, sax moom xamoon bon mu ngi SOS ba def sama recherche rakk bi France man maa def lépp ba ma gis sama sama maam bi. ba ma ko gisee lu ma tontu. responsable affaire yu patati patata expliqué bon. di wër di wër di wër wër ba am ba nga gis ba nga gis yow ba nga ah ba lii moy sama famille papa ba nga yow ñu lay wax lolu nga xamné après daf ma loolu wax bo mo waxe rek ma dépasser parce que ça veut dire que mom da doon renvoyer bal bi dama wax eh, moi je suis pas responsable ah oui gisal sa papa affaire yooyu non mais affaire bu salté affaire bu salté hein ah. affaire bu salté bu tilim sax mais bon après man non mais man. man man may gor yalla may may bayfal man yalla boole ma ay doomu aadama yo xam nokku ñu sax sama njabot bokku ñu sax bokku ñu sax fami mais ñoñu dañ ma jàppale ngir yalla tax tay sama bop di di topoto mais dama bëggoon xam dëgg bi rek dama bëggoon xam sama fami biologie comme dam comme dam mu def ni oui mais sama pap mu ngi tuddu biologie mu ngi tuddu Doudou Henri Diop ya ngi dégg médecin la won euh, de mon Côte d'Ivoire ba am fa jabar ba am fa ay doom léegi nag man ba ma ñëwee France fii dafa am benn xale bu moo fa yónnu woon ba mu ba xale bi dem uti contact ba am numéro bi ba ma woo ko ba moom si boppam ma jot ko dégg lu may wax waaw ma ma ne ko ah man day waxu waxu waxu waxu bu jaar yoon mais xam laa la ma tontu. ay waaye man je suis pas responsable mais temps yooyu j'étais jeune nana patati patata. bëggoon naa ko saaga bëggoon naa ne ma ba su ma ñëwee Sénégal bu ma ko jàppee je m'en fous quoi. parce que il est pas responsable quoi parce que même même même même même même. même animaux yi sax duñ def lii animaux yi nga xam ne dañuy jur doom dañuy toppatoo seen doom cinquantement doomu aadama nit su côté Dame Sarr nag papa moom wax dëgg yàlla yàlla moom a tiim xamalu moo ko dara ba ma musuma musuma gis papaam mais sama beneen rakk bi nekk biir France moom papaam moom xam naa ko mi ngi tudd mu ngi tuddu Michel Oudou papa yi rakk bu ku topp su daam yaa ngi dégg man maay taaw daam topp si man Euh, René top si si euh, euh di top si si daam sama yaay dafa amoon fièvre, comme lu me la doon expliqué dafa amoon feebaru bopp elle elle n'avait pas euh, elle n'était pas stable Le moo taxoon mu préféré jël doomam yëpp dugaleen SOS papi ils sont pas ils sont ils sont pas des ils sont irresponsables ils sont irresponsables moo tax man leen rek laa naan yàlla gis sama yaay mais après ñoom excuse-moi du terme ah, maa ngi wax bi mais moi je me bats soxuma leen sax xam bëgguma leen sax xam parce que dama xam ne jour ma leen xamee naa leen def lu lu lu salté te bëgguma yeggoo ñoom foofu moo tax bëgguma leen sax xam sama yaay moom waaw Mariama Koulibaly waaw dinaa def lépp mais les pères là franchement ay papa yi non nga jégal ma quoi duñu ay duñu ay exemple quoi duñu ay père exemple duñu ay père exemple waaw wax dëgg yàlla duñu ay père exemple ñi nga xam ne bokkuñu sax famille sax ñoo ma gën a jàpp dégg nga Hmm. Ndiaye. kii mooy seen yaay. photo bii nga yor nii. mooy seen yaay mais xam nga lii boobu jeune la. Hmm. kii mooy daam saar mooy ki njëkk a wax kii déggul sax olof. waaw turam sax mënu ko wax bu baax démb maa ngi naan ko euh, sa tuur amul enn daam la moom ndaam danaan c'est moi Ndam Sarr. Hmm. te mënuma noo tubaab bi ñu naan ko enn ndaam ak yu kenn xamul lii kii mooy Dame Sarr. waji ki kii numéro kuddu kudunas nak naas mhm. xamul ko xam nga so so sa yaay feebaree. wa mhm. papa ga dem ci papa papa rejeté la. Mhm. dégg nga lam wax ni papa am la ko. ko xamul fu mu jëm. amna ku nek kuy liggé ci TFM lo xoma euh, ki wa wa sunu dina wax turam. koku, moy frère am mom la jël def ko frère. seen kër la nekkoon yaay moko don doon ba ni mu tukkee. ñooñu la jël def leen ñu mu bokkal ndey ak baay mais fi nga xam ne mooy famille biologique am dañ ko rejeté mais moom toujours taayiwul dafa yàgg di wër frère am mhm. ak yaayam fi mu ne xamul fu yaayam ne xamul fu famille nekk te moment bi soo gisee ñiy taxaw mooy am na ñu nekk ci situation bi li mu daj ba gis papaam ak li mu ci dégg mhm. est-ce que dina amaat courage wër yaayam waaw am na courage ba léegi fi nit ñi mi ngi wër yaayam xam nga yaay du laax du la rejeté. Mhm. moo la jur mais am nga nga ngay am père yoo xam ne dañuy def erreur de jeunesse après dawar seen responsabilité te xamuñu ni xale bii nekk bébé tey day nekki mag kii kilifa la kii am na 43 ans. mais moo tax baan. waaw yàlla dafa def li muy def ba pare. waaw nit judd na fi nekk ndeyam ak baayam. waaw dem ba màgg. waaw te mënalu leen dara. waaw. bëgg a tukki mu tëkku nit judd na fi nekk ndeyam ak baayam bëgg a tukki mu tëkku mu jël gaal gi des ci yoon bi. waaw moom gis nga ci condition yi mu màggee. Mhm. gis nga li mu daj. Uh-huh. tey ma nga bitim réew. Ah. te mu ngi situation bu baax. bu baax moo tax nañu yàlla noppalu noppi na ba. ñoom ñaar ñëpp. dafa am na trois fi mu nii maire bi mi ñetti doom yu nekk bitim réew. kenn ngi ndakaaru koo xam ne ñoom xamuñu ko fi mu nii kenn kooku la ñuy nekk di wër ak seen yaay. waa léegi ñun bu ñu leen bëggee dimbale kay ñi xam dara ci maire bi. waaw dañu wax fan la féete. bu mm-hmm. fekkee dafa dee ñu xam ne faatu na. bu fekkee mi ngi dund ñu wax doom yi fan la nekk.

parce que ñii am ñu responsabilité nit da ngay gëm da am sa responsabilité boo defee nga ne yaa def nga jël sa responsabilité ñu mënoon naa nekk bandi wala nekk leneen wala nekk koo xam ne ku bon la mais ginnaaw yàlla tey ginnaaw yàlla tey ginnaaw yàlla tey wax dëgg yàlla benn nit laa xam ne dum ko mos fàtt sama àdduna muy taala taala daf taala daf ma jàppale sama àdduna taala taala daf ma jàppale sama àdduna motax tax maa ngi sant moo gis nga de yàlla da lay boole ak ñoo xam ne bokku leen dara mais ñooñu ñoo lay gën a jàpp que sa sa mbokk yi ñu ñu la jur. non jot naa ko parce que ba ma envoyé message bi nii la ba ma jël dama dama jël numéro bi woon naa ko waxtaan nañ lu yàgg waxtaan nañ plus de une heure quarante cinq minutes si jot naa ko jot naa ko non Ndoye ban yow kay yàllaa lay fay jot naa ko jot naa ko nii. jot naa ko ni waxtaan nañ waxtaan nañ lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mu ne ma foo mu expliqué naa ko lépp expliqué naa man kay yow kay laay sant rek yow kay laay sant moom li ma wax dëgg yàlla. dool wér dool yu wér gi yaram ak gudd fan. waaw ginnaaw yàlla nag ma lu ma la doon wax rek ginnaaw yàlla yaa tax ma gis sama sama frère Dame waaw dama bëgg nag Sénégal bi ñépp xam ko waaw parce que naa si. sonoon naa si def naa ay démarches légui nak yalla def na euh, déggante nag moom waaw jot waxtan nañ ba euh, je l'ai retrouvé alhamdoulillah maa ngi sant borom bu baax baax di sante yalla di sante yalla di dolli di sante yalla noy ban euh, def nga liggéey bu mag def nga liggéey bu mag waaw maa ngi lay sante bu baax di parce que man bama ma ba Sénégal nekk tout seul di di di di chercher Sedine euh Sarr nous ñi nous ngi ñu may déglu ñu ngi foofu ba amul kenn kenn bougé pour a def lenn mais yàlla def na mais nag bu ñu lu waay def du ko fay lu waay def fii incha di nga fay ban waaw na dem jëli rakam waaw ñu frères yi waaw dem waaw bu ñu ko wëree ba gis ko. waaw après la vie continue. la vie bu ñu ko gisul fekk yàlla dogal na ca lëgën. waaw fa mu nekk ñu dem di ko ñaanal. kenn ñu jéem buñ ci mere ma sàmb. waaw buñ ci mere ma démb. Uh-huh. li des nañu bàyyi ak yàlla mu réglé ko même papaam yi mu wax ne dañ ko wax lu ko métti xëy na métti na. Uh-huh. parce que tey foogu ko woon. Uh-huh. et bu ko yàlla tegul woon loxo mën naa mu demee neneen. mais problème bi mooy bu ci jàppal kenn leen. ana daam seen moom. Euh, daam saar plus moom déggul wolof. waaw xam naa déggul wolof moom dafa moom moom soo xool gis nga photo bi su niruwul sax <laughs> sénégalais. Ah, mais puisque moom moo moom moo njëkk a ñëw contacter waa xalaas bi ñu paree woo naa ko ni ko lo bi bi nga gisee sa frère ba wax ak moom ba pare lan nga yëg. ah wax na déglu ko. Salam alaikum à tout le peuple sénégalais. Comme vous le savez, je cherchais des membres de ma famille que je n'ai jamais connus. Grâce à l'émission, j'ai pu retrouver mon grand frère Koudounas Mohamed. Je suis très heureux. Nous nous sommes parlé. Nous devons nous voir très bientôt. Merci beaucoup d'avoir permis de retrouver mon frère. C'est vrai, il m'a tout expliqué. Je, je suis un peu euh, ému et bouleversé en ce moment, mais bon, je vais essayer de dormir euh, le plus rapidement possible cette nuit. C'est une grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande nouvelle que vous m'avez, que vous avez permis de réaliser là, que Dieu a permis que par votre entreprise. Euh, c'est c'est fantastique quoi. Je suis encore ému. Excusez-moi de, je trouve pas mes mots, mais je vous remercie beaucoup et je dois encore. Euh, c'est que le début, mais c'est déjà un, énorme pas qui a été franchi quoi. C'est c'est encore plus euh, plus grand que d'avoir gagné <laughs> au loto. <laughs> je sais pas quoi vous dire d'autre, mais euh, Merci, que Dieu vous garde. Car je n'ai pas encore retrouvé ma maman, qui s'appelle Mamou Koudibadi, mon père Ibrahim Massar et mon petit frère. Fier d'être l'un des vôtres. Et encore merci à la radio Khalas. Grâce à Dieu, il existe encore des gens comme vous pour permettre à des gens comme nous de se retrouver des décennies plus tard. Amen. xalaas a ngi nii nag. waaw mission mi ngi soog a ñëw. waaw waaye bii moom mën naa ko génnee ci xalaas yi nga xamante ne. ji mm-hmm, tey mm-hmm. buñ doon élire ballon d'or dina bokk ci cinq yu mujj yi. ballon d'or <laughs> ballon d'or xalaas bu ko doon élire. <laughs> wala xalaas d'or waaw xalaas d'or. Euh, maa ngi soog a comprendre également lu tax doomi Sénégal yi nekk bitim réew. ku la ah. njëkk woo li mu lay njëkk a mooy. Uh-huh. yéen a ngi def liggéey bu am solo. parce que lii dafa métti di jaay malheureusement fekkoo ma takk montre mais dama kon dama koy tekki jox la. non bàyyi non non mais ah, euh, nekk. na mënu koo encaissé mën naa la ko. du loolu ne de. yàlla xam na ne loolu ci nekk baan. daa kon waxal auditeurs auditeurs ñu cotiser bokk. ah lu ko bu ñu naree yegg ma case de Birama la case <laughs> c'est pas toutes les cases brûle c'est pas seulement la case de Birama. en tout cas mi nii. oui ma yàlla la yàlla fay. amiin mu fay ñun ñëpp. non waa ji. waaw nam njëkki woon a wax ak nii nga xam ne moom retrouvé na mbégteem. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. loolu moo baax. jaaxle na trop. nii la gis nga doo nekk ci rajo rek. diw soode na wujj wa diw taal na ko diw def ma tiriyaande di di maanaam di di gësama ko gësan famille jàmbur yi. man c'est que li ma ci gën a métti mooy maire bi li mu amul ànd woon ak xelam. maire bi moom dina feeñ fii léegi. moom kay ci yenn anam lay feeñ ak yoon condition. waaw loolu moo jar a topp. kon ñu que léegi ñaari doomam ñu ngi koy wër. njëkk a wax. waaw moom xam na ci réew mi lu fi ki mujjee wax xamul. parce que dafa mel ni moo fi gën a yàgg. waaw xam nay olof daj na fii dara. waaw mu na ko fi. Uh-huh. ñoom ñaar bu ñu àndandoo dañ ko gis. waaw dinañ ko gis rek fekk. amiin amiin amiin amiin ko bëggee ñu gisee ko noonu. waaw ñu gisee ko noonu. voilà voilà kon bokk ñu ngi leen sant di leen gërëm. man sant la gërëm.